amiin yooyu la la Amém. Amém. Amen. ñu jaaree ne la waruñu woon a jaar fii si biir bagage bi. loolu fii balaa ngaa jàll Amen. dox leen dox leen jël suñu bopp jëbal ko seen bopp ñun la doon moo ñu defar de boo taxawtu noonu moom ñu ngi ci mbedd may taxawal kon nag nit bu defee ci yow lu kenn deful melal ci moom lu kenn mënu asalaamaaleykum wa rahmatullah dundal ñas bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi ñu ngi santaat yàlla beneen yoon waaye tey xool yëpp dund nañ tey ci bésu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi tey Cheikh Mouhamadul Mamoun ñëw na teew ak ñun ñëw na gàmmu si waat ak ñun ndax tey ku xool jotaay bii xam ne tey sëriñ Mouhamadul Mamoun mu ngi tey ci jotaay bii kon dañuy sant yàlla alaaji bàyyi oote googu ñu ngi ciy oo bépp taalibe danañ dugg ci tund bi dox ci buntu taalibe yi ci ndigal ba bés bii nga xam ne tey ñëpp am nañ ci yaakaar te yaakaar googu moo foor ci Cheikh Mouhamadul Baye Mamoun mii nga xam ne tey jàkkaaroo ak Baye jàkkaaroo ak Serigne Mamoun ànd tey demaat ci xabru bi jàkkaarloo ak Baye jàkkaarloo ak Serigne Mamoun tey ak Serigne Mamoun ñëwaat tey ci saal bii nga xam ne ku falu fii nga faloo ku amee barke fii nga amee barke ku tedd fii nga teddee adduna bi yëpp daw nañ ñëw toog tey ci salle bi kon roxo yëpp tey ñu ngi nii tey teew jugee ci ay international ñëpp tey jàkkaaroo Cheikh Baye Mamoun nga xam ne tey moo wutu Serigne Mouhamadul Mamoun ku ko xool xool gis jëm Maulana Cheikh Ibrahima Niass kon ñun ñëpp nañ wax alhamdulilah ñëpp nañ wax alhamdulilah ñëpp nañ wax alhamdulilah mais tey Serigne Mamoun a ngi nii toog ah. wallahi Serigne Mamoun a ngi nii toog te saal bi tey ni mu riitee wallahi ñëpp daw nañ tey wuti si tey ci saal bi muy bési tey juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñu ngi oo taalibe di oo ñëpp bés boobu bu ñu ci kenn jiitu nañ nañ nañ teew ci buntu taalibe ba àdduna bi yëg yëg na tey buntu kër gii tey Serigne Mouhamadul Mamoun tey ñëw na suñ gàmmuwaat kat mooy bunt ak Serigne Mouhamadul Mamoun kon gàmmuwaat googu Serigne Mamoun dana teew ku bëgg a jëriñu nag bu la bés boobu rëcc su la rëccee rek perte nga sa dund gi te yàlla ñu yàlla musal ci perte te ku ànd ak ñii doo perte mukk mukk ku gis tey jotaay bii nga xam ne tey ku ci xool rek sa xol dafay sedd waaye taalibe ñun am nañ loo xam ne kenn amu ko tey jotaay bii tey alhamdulilah ñu ngi gërëm ñu ngi sant ñu ngi gën a dooleewaat di amaat yaakaar te yaakaar googu du fol du tas mukk ndax suñu xol yi bàyyi rek lañ bëgg moo ñu tëb moo ñu ñaanal yàlla bëggal ñu bàyyi wax naa ko ca saal ba na leen mbonaat su xoolee doomam rek musu baatin la waaye yàlla may na ko jëmm jiitoo muy Cheikh Baye Mamadou Niass fu mu xool rek mu ngi lay tëbb di la ñaanal yàlla xam na li nekk sa xol sëriñ bi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla beneen yoon di gën a ootewaat di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci bés boobu te bés boobu insha allah njëriñ ak barke rek lañ ciy amee wasalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم معهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم ñu ngi ndokkeel sëriñ bi ci jaamu sëriñ bi ñu wax Mamadou Thiam mu gàddam sëriñ Mouhamadou Mansour mu ndar kontaan rek loolu nag euh, wal bi leerul bu baax sant laa leen gërëm laa leen ndokkeel naa sëriñ bi sabu sëriñ bi borom alquran loolu rek kontaan rek moo tax ma ma ma jàng kii bi xam naa ne sëriñ bi di loolu dina ko neex ngeen baal ne duudu ana duudu nekkul waaw duudu foyaako anam am seen waa ji. bàyyi ko. des na ndigal ci jël kàddu fii am kontaan lool ci jotaay bi di nuyu sëriñ bi yow ren comme ni ma amoon baal ñu sëriñ bi sëriñ Mamour sëriñ Ibrahim di nuyu fii la wax Cheikh Moussa Sëriñ di nuyu Cheikh Mouhamadou Mansour Sida Ali di nuyu Cheikh Tidiane ak jigéen militar bi fi nekk ñu wax ne sëriñ bi li muy oo nii suñu njëriñ la waa ji jàngal Alxuraan léegi mu xaddam bi mu xaddam semence bi wax na ko yaa ngi dëgg naa mustajibu lillahi wala rasuli yaa daakum maa yoxikum ñu ngi wooyee ci loo xam ne lu leen di dund sama famille la boobu noonu rek waxtu bi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waxtu te muy li sëñ bi lu ñu oo moom mbokk mi toog lu ñu dundal suñu xol yi la lu ñu dundal suñu wax yi rek kon suñ njëriñ la ko ci uy rek amul sikk ne bàyyi nga uy si sëriñ Maamun yàlla daf ko may mu nekk bunt bu rëy rëy rëy ci wàllu Cheikh xam ne waxuma ne kenn amu ko naa ci loolu waaye néew na ko ko am ndax teew sa bopp nga teewal ku ci teew da nga ci daal ak ci baatin te mbir mi itte rek la ak yooyee ndigal ndigal dafa am solo ci yëf te amuñ fii ndigal lu wér a moo fi nekk loo xam ne nii waxuñ ne nekkul feneen de waaye fii moom nekk na fi lool te fës na fi lool te ñun wér nañu kon képp ku fi teew war ngaa fexe ba bésu samedi boobu noonu ñu wax ci tàkkusaan nga fekkee ko ndax lañ bal la fay ballee ci njëriñ ak ci leer ak ci mbóot ak ci yokkute zaahir ak baatin nga fekkee ko mën cee jël sa la te am na loo xam ne kenn du ko yóbbante nag waaw Baye wax na ci fii ci ziara ne ziara euh, euh, ziara ziara bi ba tey mi ngi nekk ñun ndax mbootam moo des ak njaboot gi moo des ci taalibe yi ba léegi nii foo tourné ci pay bi gis jëxitam loolu tëb si toog nii loolu lañ bëgg mi ngi gërëm ñoom ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu alhamdulilahi rabil alamin bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu beneen yoon di wax rek ne ñu jaar fii ñi nga xam ne ñooñu jur fi ñu jaar muy alaaji baay ak mbokk yi jaar ñi nga xam ne Allah Allah bu dënën dërëw ci leen tegtal nelaw baaraam maane yàlla dajji kon su ba ca xaybu amoon na lu riis waaye biram mi kenn xamu ko boo la la la la la la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 يا همة الشيخ واحضر لنا في هذا المحضر وتعصي فيه بنورة تاسعنا وبضبل mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki soppe yi soppe yi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mbokki jullit kilifa diine yi soxna Yaaram Mbàkke maa ngi nuyu ñëpp surafaaw yi ala bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Assane mu Niass soppe yi ay Mamoun ñu jur ci deret ak ñu yar ci roxo ak ñu bokk moom njabooti Maam Faat Jaañ njabooti Seyda Khadija al Kubra njabooti Seyda Umu Kalsum njabooti Cheikh Mouhamadul Mountakha njabooti Cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass jugee Fuuta ñëw maa ngi nuyu ñëpp yow asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi wax ci làmmiñu bii yàlla bi nga xam ne moom rek moo ko maa ngi leen ndokkeel moo naa Cheikh Ibrahima di ndokkeelee boppam ne haniyan li Ibrahima laaha ilaaluhu jaman badaa ndokkeel naa sama bopp man Ibrahima Ñas weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teru taalibe yëpp soppe yi waxtaanu ren wi di ko toxal oo soppe yëpp comme ni ma ko tuddee léegi jotaay boo xam ne di dugg yonent bi saa sama ngénte la sallallahu alayhi wa sallam ñuy bu delsee 16 heures fii dañ yaatal tànt bi bu baax a baax amul la waxtaan yëpp dafa demee li ci waroon a wax wala man dañu leen seen i kàddu di seet ñu ko waxee lu aju ci bés boobu. léegi nag may ma kenn ngànt oto bi yàlla la oto bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oto bi Cheikh Ahmad Tidiane oto la oto bi xew bi nga xam ne moom la yàlla jégleel. àggale leen loolu ma yow kenn ngànt taalibe yi ñëw ak soppe suñu waajur ñu koy ziyaara Seyda Fatima Xasan def ñaanal yàlla gudd fan ak sàkku mu dal li ñaanal mayu ma kenn ngaan képp ku bëgg ndolal ñoo ñu dem ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dañ àndandoor sikar dem ziyaara